Cheikh Ibrahima ne ah, ci programme yàlla bi ci la bokk kooku yàlla moo koy téyeel boppam waaw ah, yàlla moo koy téyeel boppam ci lépp mbir lépp lu ko a min imarata maa ngi yéene dundal néeg yonent bi sallallahu waaye Baye xam ne ak benn yoon mooy farata waaye def na ko def ko def na ko def na ko lu bëree bëri dégg naa journaliste bi ko laajoon Sour Ndiaye ne ko sa baay ñaata ak juróom ku dégg bande bi ñu koy laaj ñu koy أتيتك تسعا ثم عشرا وإنني أتيتك هذه فاهدني لا ترمز yow yonent bi sallallahu dikkal naa la ñeent juróom-ñeent dikkal la fukk dikkal la bii muy yoon kon jubal ma te bul mu ñu dugg ci dara nga gis lim daan na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan defee sunnaay ak nam ko daan defee yëpp noonu la toppee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ca tawaaf ba ca sànni jamra ya ca taxawaay a ya ca lépp na ko yonent bi defee noonu la ko defee ba benn ak sax ci ajami nee na sànni nañ ma fa ñuy sànni xeer te du ma dañ mukk di ñàkk nee na nekk noonu Cheikh Mahi Cissé yàlla yàlla dundal fan ak mbiram noonu iblis mooy képp koo xam ne lépp lu yàlla santaane yaa ngi ci lu mu tere nga bàyyi ko kooku mooy noonu moo tax kon dundam xoolee yéene ba mu amoon di ko xool yéene boobu laa koy xoolee xoolal nit toppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu kon yéene bu ko daan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xoolee mi ne moom laay xoolee ba mu demee ba ci taxaw arafa ni mu toppee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey dafa wax ne wa mashayna ila jabali rahma mawqifu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi arafa wa in kaana arafa kulluha mawqifan wa waqafna lillahi alhamdu ala na baadama rek fi jëmale lépp ci saari sunu bàyyi mi ne dox lañ jëm jabalu rahma jabalu rahma nga xam ne fu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawee ñin foofu lañ taxaw foofu lañ taxaw mi ne donte arafa fépp foo taxaw ci arafa rek taxawaay la waaye man nag taxaw naa fa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan taxaw ngir ma roy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko rek dañ koy boole ci sunnaa yonent bi sallallahu ndax lépp lu yonent a sunna kon noonu la ko toppee kon noo suum te laa natt fu sabila su may damay or te koor ak yonent bi mooy nag boo xasee or doo wax lu ñaaw doo jëf lu ñaaw la'allakum tattaqun ragal yàlla moom nga xam ne loolu lañ ci dëxalee moom toujours na daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la yoon mi ne nasuumuka laa naqtul sabiila sunnati Cheikh Imam Hasan Cissé daf daan wax ne sunna bi nga xam ne sunna su ndaw la te nit ñi diñ ko bàyyi xel bàyyi sax daf cee roy dunu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy buy soy buy sol dàllam njëkkee ndeyjoor bu koy simi loolu sunna yonent ndax yonent bi loolu la daan solee daal bàyyi loolu sax mosu koo bàyyi loolu bàyyi mosu koo ku bàyyiwul nag sunna yu ndaw yi ndax da nga bàyyi sunna yu mag yi kon doo ko bàyyi mukk kon loolu la toppewoon sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mi ne raditu bi rabbi wal xanifatu maslaki imami rasulullahi la ataqallafu dalili rasulullahi wal baytu qiblati nasumu wa bil bayti alxarami nutawifu nusalli sujudan raakiina سننه ولسنا نبالي بالصليب فلا نرى سوى خالق الاكوان يعطي ويدفع باي من الدرب لا يالله موي سما بروم دينا جي موي دينا الاسلام موي سما سوبواي sama imam ba ma koy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diina ji dégguma ci kenn kenn du sama njiit ci diina ji yonent bi rek laa ci topp imaam yi rasulullah laa ataxallaf sama imam moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom laa teg sama kanam teguma ci kenn moo tax du ma wuuteeg moom ci dara wuteeg moom ci dara moom laay topp moom yonent bi dalili rasulullah sama tegtal mooy yonent bi rek laay tegtalee sama sama euh, euh, euh, néeg ba néegam yàlla bi mooy sama xibla dinaa xoor dinaa wër kaaba gi dinaa julli dinaa rukoo loolu yëpp dinaa ko def jiiral jamono man Cheikh bi tudduma jeng mukk man nag fa walasnaa nubaali bi salibi fala nara siwa xaaliqil akwaani yuxti woyti man faalewu ma borom kanisa yi abbe yi faale ndax man gisuma ku dul yàlla muy borom bindee yàlla rek mooy joxe moom mooy. non dajee dajee boo xam ne dara waralu ko lu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj xam ne kado boo xam ne yàlla moo ko jox muy àddina muy kado bu rëy muy Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahima Niass ci ni mu toppee woon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk loolu waxtaan bi dañ ko def ci ñetti point lan mooy sunna d'abord pour nit xam ko ak saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka lay doon topp naka lañ toppee woon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw nag ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu naka la doon ne ñooñu sunna buñ ko waxee mooy lépp loo xam ne jugee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir lépp loo xam ne jugee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax loo xam ne moo ko wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala jëf joo xam ne moom moo ko jëf moom yonent bi sallallahu alayhi wala loo xam ne dañ koo def ci kanamam mu noppi ci waxut ci daa saxal ko loolu mooy sunna kon nag kon lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def rek loolu la tuddee sunna ndax bu taxutoon ak sunna kenn ñu bëri duñ xam lan mooy diine lislaam duñ ci xam dara sunna nag dafa ñëw pour firi alquran ndax yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy liñ def te lépp lu def rek alquran d'abord ki ñu wàccee ci moom sunna ki def sunna soosu ñu war koo roy mu yonent bi capacité mu ñu doy na rek li ko yàlla wax ci alquran ne wa maa yantiqu ani l-hawa in huwa illa wahyun yuuha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ci xàqam ne mësta wax ci bànneexi bakkanam lépp lu mu wax rek wax yi kon loo ci déggee mooy lépp lu mu defit rek alquran la yàlla moo ko digal ci yëpp yàlla wax na ko ci alquran ko inna anzalna ilayka alkitaba bilxaqi li taxkuma bayna annaasi bima araka allah yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàccee na ci yow alquran ci dëgg pour ngay àtte nit ñi ci li nga xam ne la la yàlla kon nag kooku lépp wala lépp lu mu def ko rek lépp lu mu def rek ci la jóge subhanahu wa taala yàlla wax fene ne wa ma aataakum rasulu wa ma rasulu fa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu ngeen lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkal na ngeen ko jël muy ci wax muy ci jëf mu wax leen ko na ngeen ko jël na ngeen ko jëfee lépp luñ leen tere na ngeen ko bàyyi kon nag kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaam mooy alquran rek wax na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna al-islaama bada'a ghariban wa sayakunu ghariban kama bada'a فطوبى فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغرباء قال alladina yuqimuuna sunnati wa yuallimuunaha ibadallah na ci tumuranke waaye dana dellu ci tumuranke naka mu tàmbalee woon ñu ne texe nag ñeel na ñi nga xam ne ñooy ñi tumuranke yi ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi tumuranke mi ñi nga xam ne sunna te di ko xamal jaami yàlla yi ñooñu nag nga xam ne moo ñu dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa kon sunna dafa ñëw rek firi alquran leeral wax yonent ci ak jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu daan def ci diggante saxaaba yi loolu yëpp pour nit ñi xam ko ci li mu wax ak lu mu jëf ak loo xam ne def nañ ko ci kanam moom mu ca waxut ci dara وخير ñu ngi lay ñu ngi lay ziare ziare képp ku ànd ak di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan. yàggal la fii ci kanam suñu kanam. boo fi yàggee lu bëri dana baax. lu bëri dana awee ndax man gëm naa ne yow ci jaam nga xam ne yàlla da leen di xool di rus. alal mi léegi ci la ñu amal boole. buñ ànd ak yow dana nangu ñu ànd googu. bés bu set danañ ko danañ koy wéral nga ñaan nga ñaanal yàlla waa Koungheul yëpp ñaanal yàlla képp ku def ci jotaay bi dara ñaanal yàlla waa Jalle ñaanal yàlla waa Kaolack ñaanal yàlla waa Sénégal ñaanal leen yiw ñaanal leen barke ndaw yi yàlla jubal leen xiir leen ñu jàng ñaanal ndaw yi yàlla jubal leen xiir leen ñu jàng ndax loolu rek mooy avenir Sénégal. kii wax nag ñu ngi lay ñaanal addiya wax di sori maa ngi ñaan ku bëgg baa ngi ñëw man joxe naa fukki junne. xam ne waxtu mu xam na ci jamono bi nga xam ne ndox yi bëri na waaye itam soxla yi bëri nañ waaye ngeen bàyyi yooyu yëpp ñëw fekkee si jotaay bii. mu ne loolu su fekkee am na lu muy tegtale dafay tegtale seen dëggu ak seen mbëggeel mu ne loolu nag mënta def dara lu may gërëm ñu ngi ñëpp ñaanal ñu yàlla yal na yàlla fay ñu suñu jëf yaa rabbi mu ne koñ bii di jariñ ñoom xam nañ ko bu baax ndax ñoom Kaolack lañ nekkoon sëriñ bi nag buy wax Kaolack ville lay wax ndax ñoom dañoo ne bokkut fii mu ne ma ngi fi newoon ku mel ni Baye Moussa Dieng sama trondoo ak Baye Ibrahima bi tey ak Alxaaji Omar Diouf ak Babou Soxna sama baay lu nekk defal nañ ko Baye Niass ci bëgg ko maa ngi ko waxtu wu nekk mu ne sama turandoo Baye na jamono joo xam ne Baye daf daan def tool fay amoon essence fii essence yi ci biir Kaolack mu ne bu ñëwaan Baye jaar fa di jël essence sama turandoo day wax chauffeur bi ne ko Ibil Baye dafay def mbàndeeg essence gi ba mu fees. bu paree lépp lu bàyyi soxla mu dem jënd lépp ñëw jox te loolu dëgg-dëgg mbëggeelam bàyyi rek la am ci moom ñu koy gërëm mu ne mi ngi koy ñaanal yàlla tey gërëm mboolem mag bi nekkaloon ñoom ñëpp doon liggéeyal liggéey bu rafet boobu mu ne jotaay bii nag ñu ciy rendre hommage Cheikh nee na moom Cheikh Dieng bàyyam moo ko boole woon ak moom te tey mu ne maam Moussa wax ko ne dénk naa la Cheikh ñaanal ko am naa ci moom yaakaar te xam na ne boo ko ñaanalee bu ko wëcceeg njabootam njabootam duñ sonn gannaaw ëllëg. ba tax na daayira bii samp lii bu Cheikh Diagne ak Cheikh Ahmadou bi tey mii ñoom ñoo ko taxawal mi ngi gërëm ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp di ñaanal yàlla waa koñ bi yëpp mu ne koñ bii liñ ko xamoon mooy foret ak kii waaye bi ma ñëwee def fi bés bu nii mu ne te benn jotaay bu yiw dana kaafara ay junney junney jotaay yoo xam ne safaan bi la mu ne jotaay bii kon am nañ ci yaakaar bi ci sukkandiku ñaan yàlla defar nawet bi may ñu ndoxam barke may ñu gàncax bu rafet may ñu ngóob bu rafet dañ boole ko ci ñu ko muurloo tey sant yàlla mi ngi gërëm ñu fi teew ñëpp. tey delloo nuyoo maire bi nga xam ne moo fi yebal délégation bii muy Mariama Sarr mu ne moom mënul politique sëriñ bi waaye xam na ne Mariama Sarr bokk ci politiciens yi nga xam ne bu ñuy ut bu ñu amee li ñu ut rek fàtte kóllëre gi mu ko jàppoon moom ak doomam Abdoulahi ba léegi ñu ngi koy doxal ñu ngi koy gërëm jàppalanteeg moom mi ngi ñaanal ñëpp yàlla faj seen xaaju ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñëpp ñu teewal suñu xaajo ñaan yàlla buñ pare ñu yeweeku amin amin amin amin آمين آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين